وصار الحق من الحق المبين lii ngi jégalu ci dérangement bi ndaxte dama waroon a toog laxasaayu taxaw ci buntu kër gi di la teerule gan ñi ndax loolu moo fiy jariñe fii nii ñu toog ci sawet lu fi nit indi lu dul ak taalibe gisoo ko ak taalibe rek la fi nit mën a indi mu safe ñun nag loolu rek la ñuy ñaan yàlla nga ñaanal ñun ñu sax ci loolu nga ñaanal ñu itam maa mbooloo mii ñu àndal te gor yoo xam ne wuti fenn lenn man mi am doy na leen lu ma nekk doy na leen yàlla saxal ñu ci ak taalibe ñu dund ba lépp lu ñuy def ci sa bisu maam bii kenn bañ ñu cee ëpp sama digganteeg yow nag man dootuma ci dellu ndax am na loo xam ne sañ na koo wax am na loo xam ne sañu ma koo wax waaye sañ naa béral ñépp ni maa ngi ñaan yàlla ñi may ñaan it maa ngi leen di ñaan yàlla ñu ñaanal suñu sëriñ bii toog yàlla dëgëral ko te bàyyi ko xelam ndax lii nga xam ne da ko yor mu diis yàlla téyel ko maanaam jàppale ndax daf di sagu yoon wi ndax su fekkee ni macha waxtu waa xamee ni yoon wi nit ñi war nañoo war nañoo wax moom kot mooy wax ak responsabilité wax jooje macha allah yàlla dimbali ñu ba ñun ñi nga xam ne dañ cee bokk muy sunu fierté comprendre nit ñi ba bu waxee kenn ku nekk jàpp ni man de maa wax sëriñ bi lii pour mu wax ko loolu ndimbalu sunu borom dong la kon nag yàlla mi nga xam ne moo la teg fii tànnal la sa maam yàlla moomu yàlla na la taxaw. sa kilifa gii nga xam ne mu ngi ci sa kanam te ngeen yàgg ànd di liggéey yàgg ànd di dox ba tey mu jiitu ca loola ngeen doon ànd di ko doxal ay nit mu jiitu ca nga xam ne daanaka rek xam nga lam ca bëgg xam nga lam ca euh, bañ xam nga lam ca seexlu xam nga lam ca nangu te ngay nit ku sell macha allah boo xam ne seede nañ ko nga seexlu lu bëri te ñun ñu dem ba xaw a xonet ci yoon wi ba kenn doy ci nga doy ci nag sëkk loo wax mu doy ndax du ñu def ñun ci suñu wàll bopp loo yëgul du nu wax loo yëgul dinañ diisoog yow lu bëree bari te waxtu wu ñu diisoog yow rek am bunt kon uh, Mbàkke ñu ngi lay gërëm di la sant di la indil ngërëmu mbooloo mi nga xam ni délégation parti bi la man mësuma ñëwee nii ci yow waaye tey nag dama ànd ak parti bi loolu rek tax ma sañ a def lii waaye taalibe laa te taalibe laay bëgg doon taalibe googu ma doon du sax du dañ mukk day sax rek maa ngi ñaan yàlla nag comme ni ma la ko daan waxee rek bu bu màggal gi jotee yàlla may ma ma joxe ci àddiya joo xam ne benn murit du ko joxe loolu daal lay ñaan yàlla te boo ma ko ñaanalee rek ci màggal gi yàlla dina ko def jërë geen jëf ñu ngi nuyu soxna Aïda Mbodj ak mboolem délégation bi ñu àndal ñëw walbati ko ni ko baaxoo defee ak si ba fii ngir jokkalante ñun ay kàddu ñu di ko nuyu sant bu baax di ko gërëm ak mboolem ñu àndal ñëpp te bu ma ci tuddee suñu mbokk mii di Serigne Bara Sylla nga xam ne ni mu demee ñun xam nga ko mën a yóbbaale ci des ñëpp sant bu baax cant goo xam ne du tay nag démb la ndax sa yitte sa taxawaay sa posté sa fonk Tuuba sa digganteeg mboolem njabootu Serigne Touba ñu ngi fi jamonte ñëpp kenn ku ci ne la la war sa digg moom ci ak jéeg ak ku ak teraanga def nga bu matal ko sëkk loolu nag di su ko fàtte kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la nongol kóllëre gi di nongu taalib gi di ko fedd bu baax a baax dañaa dem ci barke Serigne Touba suñu borom dimbale la kattanal la ba gën laa taxaw gën laa dimbale ndax xam nañ ne yow loo am rek nit ñee ko moom ndax foo ma sa jaarit lay gën a nekk sa yitte mooy fexe ba faj soxla nit ñi loolu mën ne la ko seet muy dëgg loolu nag ku koy jëf ku ne na xam ne yàlla suñ doon du nee na jëf te du sànq jëf kon na sam xel dal te sa njort rafet bu baax te xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngay jëfal itam di sonn ci njabootam itam gis na ko kon yàlla la fayal boppam waaye boo xam ne bu àggsee rek nga fàtte lépp di nuyu mbooloo yëpp di nuyu Serigne Modou waaye di la santaat di la gërëm di fedd suñ diggante li nga xam ne seq nga ko ñun te du luñ may wax ci rajo te nga di ko dox waxtu wu ne te mosoo cee sàggan itam nag doucement fàtte benn yoon boo xam sàggan nga ci dox ko kon na dañ lay ñaanal ci barke suñu Tuubaa suñu borom dimbali defal la tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وصار الحق من الحق المبين لي قال ما بال